pour des comptes dafa ni sur mille milliards de tests réalisés dix-neuf milliards son revenus positifs dix-neuf milliards sont revenus positifs en dépense non éligibles maanaam dépenses yoo xam ni kenn waru ko woon def te ñu def ko pour des comptes wax na lool pour des comptes nee na sur mille milliards de tests réalisés soixante neuf milliards sont revenus positifs en achat de denrées alimentaire surfacturées Cour des comptes moo ko wax nee na itam sur mille milliards de tests réalisés la majorité est revenue positive en corruption en détournement en dépenses inéligibles en toutes sorte de malversations Cour des comptes moo ko wax jamono janga nga xamee ni ministère de la de la santé dafa daan xëy bés bu ne taxaw ci seen kanami sénégalais yi naan leen sur nangami test yu ñu réalisé nangam positif nañu am nañu ay cas communautaire ak ay cas leneen ndekete yoo cas communautaire yaa ngi ci seen biir ñoom cas dangereux yaa ngi ci seen biir ñoom cas grave yaa ngi ci seen biir ñoom moo di ministre yi moo di directeur yi moo di daaj yi moo di seen responsable di président Macky Sall man nag foofu laa bëgg a accès sama sama commentaire sama sama kaddu ci responsabilité wu président Macky Sall tey Cour des comptes def na li mu mën a def yem fi mu mën a yem mooy mu cité ñi nga xam ni ñoom la càmbar seen yorin yem ci ñoom ni ay daaj waaye daaj mënu la def lu ministre am yëgul ministre yi bu ñu defee ñoog daaj yi c'est parce que système de gouvernance bi ñu teg moo ko permettre te système de gouvernance boobule kenn mooy responsable bi mooy président Macky Sall président Macky Sall 2012 ba tey ñëpp xam nañu ni Khalifa wax na ko keneen wax na ko ku ne wax nga ko gouvernance am yëpp maanaam yorilam daf ko laal ci ñaar mooy corruption ak impunité ku ànd ak moom le clients et les courtisans mu bàyyi leen ñu def lu leen neex mu garantir leen impunité lu ngeen ne leen lu ngeen mën a def dara du leen ci fekk noonu mooy li mu yore askan wi loolu nag bu ñu ñëwee ba pi tey lii am warul a bett kenn li tax warul a bett kenn taw responsabilité am engagé di responsabilité politique di responsabilité morale et éthique di responsabilité institutionnelle li tax mu engagé mooy Covid dafa dugg Sénégal le 2 mars 2020 le 19 mars mesure yi mu njëkk jël mooy mu modifier code des marché publics bokk na si yi mu njëkk a jël avant même l'état d'urgence moom Macky Sall mu modifié comme si loolu la ñu yàkkamti woon modifié loi bi pour mën a def seeni marché public muy benn boo xam ne responsabilité am daf ci engagé deuxième bu responsabilité am engagé bi ñu créé force con Covid 19 bi fond Covid 19 ñu ni dafa am conseil d'orientation mu am comité technique. am comité de suivi ñett yooyu conseil bi nga xam ne mooy comité d'orientation et stratégie bi boobu président Macky Sall mooy responsable bi te dañu ne liggéeyam mooy saytu yorin wi retracer orienter xool ni ñuy doxalee booba dañu ne chaque semaine boobu comité waroon na di réunir comité technique bi liggéeyam tous les jours la comité de suivi bi nga xam ne moom la ñu jox mooy euh, général Ndiaye ak société civile ak ñeneen bokk ci boobu weer wu ne war la waroon saytu mbir mi mais ki nga xam ni mooy président waroon saytu semaine bu nekk te amoon responsabilité wu def ko ñu bind ko ci loi yi ni moom moo ko war a def en tant que président bu amee njuuj njaaj ak luxóor yu ñu découvrir à posteriori yi moom mooy responsable bi parce que moo ko waroon def te defu ko liggéeyam la bu mu deful loolu itam engagé na responsabilité am ba tax ñun ki ñuy pointé di ko duut baaraam mooy le président de la république problème moral beneen bi ci am mooy ma cité leen ko ngeen xool ko dafa am solo fonds force Covid 19 bii ngeen di dégg xaalis la bu takkoo takkoo barki démb boo Ndiaye son ko ci live am mu ngi ko ciy wax. loo xam ne li ci gën a metti mooy bor bi nga xam ne mu ngi sunu ndodd te danañ ko fay ba kenn xamul kañ lañ koy pare. ku mel ni FMI moo ñu lebal bor deux cent soixante six milliards la lebal FMI dañu koy fay. Union européenne lebal nañu quatre vingt et un milliards danañ ko fay. Allemagne lebal nañu 69 milliards danañ ko fay Banque mondiale lebal nañu 71 milliards danañ ko ko fay BAD lebal nañu 57 milliards Agence française de développement 30 milliards Banque islamique de développement 51 milliards BOAD 22 milliards Japon 1 milliard 500 Union UEMOA 500 millions nga yokk ci nag li gën a garaaw ba ñu defee loolu yépp xaalis bi doyul ñu ne sénégalais yi ñëw leen jàpp ci lu ñu mën lu ñu mënul ñu indi ko sénégalais yi dajale seen alal muy fonds de solidarité national dix neuf milliards yu ay sénégalais ñàkk gis naa ci liste bi sax ku joxe deux mille francs sénégalais bu génnee deux mille francs ndax yéene joxe ko waaye ñun sénégalais yi lan moo gën a metti ci ñun deux cent millions yi nga xam ni sëriñ Mountakha génnee na ko pour joxe exemple ni réew mi lott na réew mi sonn na nit ñaa ngi dee pour won sénégalais ni dugal leen yéen itam seen contribution mu joxe joxe deux cent millions nañ ñu wax ci ñoom kan moo ci sàcc alalu sëriñ Muntaxa parce que ci ñoom la ndax dañ ko versé ci kees gi ñuy dem di ci tibb am na koo xam ne wóor na mën a jël na ci xaalisu sëriñ Muntaxa boobu moo tax xale yi ne nañ leen milliards yii du rees de milliards yi ku ci lekk ñoom nag seen système yëpp lii mooy seen daanu parce que alal jooju mënul lew te ku ko lekk di nga torox ndax loolu lañu gëm ci suñu réew mooy suñu diine mooy suñu aada ku jël alalu bàyyi néew ji doole ji alalu nit ñu ñàkk ñi alalu nit ñu tëdd ci hôpital yi di soxla masque yu ñu nooyee pour mucc jëndaloo leen masque yi jëndaloo leen oxygène nga bàyyi leen ñu dee ndax da nga sàcc alal jooju mënuloo cee mucc lii nag fi may daanele mooy ma dellu si ci li nga xam ne mooy firnde firndelaat président Macky Sall responsabilité dafa am ay benn gëstu boo xam ne am na kuréel yu ko def ci ni ñuy yore fonds Covid 19 yi ci àddina bi mu am ay mesures yoo xam ni génnee nañ ko nii bépp fonds bu ñuy yor ci yu mel noonu dafa am ay critères yoo xam ne mat nañu ci juróom-ñett yoo xam ne ci lañ koy natte am na réew yoo xam ne bi ñu nattee seen bos ay Cameroun ay Sierra woon ay réew Comores ñoom ñëpp ñoo raw Sénégal ci transparence bi ñu yore fonds bi ci huit critères yooyu Sénégal respecté wu ci benn benn critère respecté wu ma ma tënk jukkil leen ci rek ñaar wala ñett publier les contrats d'achat d'achat liés à la Covid 19 publier. les contrats d'achat liés à la Covid-19 maanaam xaalis ba nga jël jënd ji def ay contrat jënd ceeb nga publier ko ñu xam kan la li koy firnde mooy bi ñu génnee 69 milliards jox ko gorowu président pour mu dem jënd ceeb jox ko sénégalais yi mu ngi ko def le 11 avril 2020 bi mu ko defee la 11 avril 2020 ñun ñi ñëpp amul ko ci waxul def nañ ci ay communiqué def ci ay live ni leen amuleen woon droit génnee ci xaalis mille milliards yi di tàmbali di jaay te comité de suivi bi tegaguñu ko donc génnee nañu jukki ci 69 milliards jox Mansour fay mu jaay ba doyal ñu doog a teg comité ba ko war saytu pour lan lu tax teguñu comité bi avant te bi ñu tegee comité bi bu pare nee woon nañu leen na comité bi ñëw en retour mu saytu xaalis boobu ba tey jii fourage daal di xëddali 69 milliards yooyu ñoo ñu jox cee ba scandale bi ñëpp dégg nañ ko. ñañu jox diwlin ba scandale bi ñëpp dégg nañ ko moo tax bu ñu naan six mille milliards rek moo ciy luxóor waxuñu dëgg parce que boole wuñ ci ñañu jox contrat wu 17 milliards jigéen joo xam ne agence de voyage la am te waxuñu kan moo moom yooyu agence te critères yi may wax nee nañu bu ñu joxee marché benn société nañu wax les propriétaires réels ñan ñoo moom société ba ndax bu ñu affiché turu nit rek mën naa ministre nekk ci ginnaawam moom ko jox marché ba boppam jaare ko ci keneen dugal dugal ci poosam du fi jeex loolu nag foofu laa daaneele mbokk yi pour wax leen ni scandale gënul rëy lii bu amoon beneen réew ci àddina bi ci réew tubaab yi nga xam ni fonk nañu seen askan président de la république du fa yendu la muy njëkk def mooy génn wax ak askan wi te askan wi danañu manifester ba mu tekki ndong ba tànkam président de la république Macky nag xam nañu ni du ko def waaye ñun askan wi ñooy taxaw takku imposé ko ko ba nga xam ne dootul génn ci réew mi fu ñu ko dul yuuxoo ndax loolu ba keroog mu koy leeral ñu yóbbu nit ñi ci justice yóbbu leen ci ci ci yoon ñu atte leen daan leen ñu delloo si sénégalais seen alal donc loolu mooy li ma ci bëggoon yokk teg ko ci li ñu fi wax bu ngeen déggee ni ñuy waxee tey ngeen xam ni metti nañu ba ci suñu biir xool ndax dafa laal bakkanu doomu aadama ay nit ñàkk bakkan entreprise tëj nit ñàkk seen liggéey ndekete yow am na une minorité boo xam ne ñu nga ca kaw di séddoo di sédd seeni i loolu mooy li nga xam ne kenn dootu ko nagu ci biir réew mi ma leen di sant di leen gërëm merci. merci beaucoup. Je donne la parole Bonjour mesdames, messieurs les journalistes. Je ne saurais commencer mon intervention sans parler de nos deux camarades.